no beete mbokk yi Auguste a ngi noonu Auguste ndeysaan bu Gambie gëjoon a mu ngi noonu dugg si na si arène bi yaakaar naa ne sëtu ngi ko tàllal loxo yaakaar naane ne sëtu baay ngi tàllal loxo Auguste waaye mu fa sëlja ak ki nga xam ne moy africain noir black african waaw ndeysaan Sidi Cissé ak Auguste Sidi Cissé mu ngi simeeku Sidi Cissé mu ngi simeeku ndeysaan Black Africain ak mu fof Soldier Black Africain ak mu fof Soldier black africaine Mumford Soldier Mumford Soldier ngembo ngemb lu ñuul black africaine ngembo ngemb ciola bi nga xamne ne ci san lak adam muy dala waaw ministre ya nga nonu tok ministre yepp nga non tok ak gaay national assembly diplomatique si nga ca ngaalaama Mumford Soldier Afrique noire mu bob seul de Afrique ñu ngi lewaato ñu ngi lewaatoo mu bob seul de Afrique ñu ngi lewaato bokk na si combat yi nga xam ne ndeysaan gën naa métti si combat yi mu fab soldier Afrique noire mu jox ñu gannaaw Afrique noire jox ñu kanam Afrique noire jël ngemb lu ñuul ngemboo ko mu jël ngemb nga xam ne African waa jël ngemb li nga xam ne mooy ngemb cosaan ak aada ñu koyee daala allahu akbar kabiram cosaan ak aada dellu si waat na bés tey fun waaye mënoon nekk tey mu ngi toog di déglu di dégg di xool cosaan ak aada yi nga xam ne moom lañ fi am si réew mi mu fab soldat africain noir ogi sa office ngi noonu jàkkaarloog Jibril Jibril Baaji Jibril Cissé ndeysaan Jibril Cissé muf ah ndeysaan Auguste kum àndal am na lum téye am na kayit gu weex kum téye ndeysaan si ñaari loxoom parce que ndeysaan loolu yëpp bokk na si li nga xam ne mën nañoo wax ne ci aada ak cosaan la bokk Auguste mu ngi taxaw jàkkaarloog Jibril ah Auguste am na lu def am na lu mu sànni ci tànki Jibril Auguste am na lu mu sànni ci tànki Jibril Jibril nag moo fi bëri woon a Gambia bëri bi maxinil la ndam demul ndam dikkul ñu jëlaat Jibril joxaat ko ki nga xam ne mooy Auguste waaw ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo Auguste ak Jibril ñu ngi lewaatoo Auguste ak Jibril Auguste ak Jibril ñu ngi lewaatoo ku nekk nge fokk sa maram baaraamam yaakaar naa ne loolu am na solo parce que Auguste mbër la yàgg na di bëri daa yàgg di daanal Sénégal bi yëpp xam nañ ko nga xam ne mooy Auguste waaye yaakaar naa ne Jibril bëri na fi bëri boo xam ne moo Gambia foog naa ne war naa mun a bëri ki nga xam ne mooy Auguste te combat bi nekk combat bi nga xam ne du yomb combat bi du mën a yomb parce que Auguste mbër la waaye Jibril mbër la parce que jërë jaar na si Gambia te Gambia bokk na si champion yi Gambia parce que Gambia ku xam nga xam ne koo xam ne xam nga bëre war ngaa dégg Gambia lu mu def si làmb su fekkee Jibril bëri na ki nga xam ne muy Gambia maxi maxi niil am ndam demul ndam dikkul kon yaakaar naa ne. Auguste su waree bëree ki nga xam ne mooy Jibril combat bi sanke ñamo ano miñe de fuliba ñomdi kaji kera ko eno mi an manjo nari jaat piyout odi Jibril Jibril lo eno mo ma kuña dalay e bulorey Auguste o ñeme bukoku manku rogoye bukoku ka kañasore ndax si ponkala sanokor na mboko si champion sanokor na mboko kondi kayak be ngar ano sane be kan takma mistake katu mistake kem note kan mana pali angole na juk matinye mi ah Ogis na sosof keti jibril jibril po na sosof kañanak jibril Ogis jibril Ogis Kanadoro kana against Jibril. Jibril August. Jibril August Hanbejat. Koko Makuyene. August Ogis Jibril. jefrinaye tate de gambia piot kuyek nyagaba be nyafeji ku betort oto alaw jat anano nan ogis ah <laughs> ojokot na rurud bot ogis na kulokul Arun Tijan left Joe. Uh, champion Sigaba. And Panau dari Bagola Kajikere. wanmanyumi a ah, a ah, bug kanya sora koli e eh, tentam di kuito ah! jibril jibril ogis mbaɗi ngol alkamin juuɓeten wolen jibril ti ani ogis ogis an panaw an panaw na nokel la nokem be fuli bob an panaw na nokel ha na rede ah <laughs>